sujet bu am important. ndeysaan Kumba nee na suñu société dañoo dañoo matérialiste c'est vrai Abdoulaye merci. c'est bari na loo xam ne waa ji dafa ne ki ma jàkkaarloo kër gi ma jàkkaarloo waa ji dafa ne moo ko ëmbal loolu mi ngi dugg ci càkkalaarante. bari na koo xam sax ëmbal na te amal la njariñ. mu ngi dugg ci. càkkalaarante mooy tàppante bëreeg yooyu. lu mantu bër du jaaru. Hmm? bër du jaaru. sëy rek. femme mariée dafa war a tranquille jigéen bu am jëkkër dafa war a am mesure jigéen bu am jëkkër dafa war a am fu yem même soo amul jëkkër sax am na loo xam ne boo ko yoree xam ne ñëpp ëpp ñi nga jàkkaarloo ñëpp moom lañ soxla te sama borom valoriser ko da ngay xam ne nga war mu doon bu dul loolu nga ko ñàkk ci marché di nga ko ñàkk te doo xam sax la ko xañ mm-hmm. kii fokki fii fokki waxuma laa nag jigéen bu am jëkkër sa jëkkër tukki jikko la mais bi mu fi nekkee mi ngi def ko neex parce que jikko jaa ngi remarqué bu ëmbee ni mu koy jegee hmm. su avorté ni mu koy soree mais moom tam am na part de responsabilité bu mag parce que boo demee tukki ñëw fekk sa jëkkër ëmb nga am mat matu toog hmm. xool ba mu gisee ba xam ba nangoo tudd doom ba nangu koo moomale boppam parce que doom bi juddu ci sa ci sa buum yaa ko jur. Hmm. loolu li Sam wax. nga nangu koo jur yor ko ba di ko gën a lekk doom ji nga jural sa bopp kook moom qu'est-ce que la hmm. am na lu ko dal. dara ko ci fii laa ngi góor am na góor ñoo xam bëgguñu sa gis xale bi yow dan lay wàcc d'abord mais xale bi sa bëgguñu ko tëgg yow nag nga ci biir kër gi nangu ko ba pare gënale ko doom ji ko jot ci farata. te man foofu am naa ci dut sax dinañ ci ñëw peut-être ci ci parti ci parti euh, bi mu bëgg bee gën a lente bi mais. gëm naa ne soo bëggee nit bëggeel gi ngay woote doo dem ci magam di ko wax ne juruma ko di ko bëgg hmm. assez pour protéger eh, ko eh, ah, ah bien sûr hmm. bien sûr bien sûr mën naa ne nag doo bëgg sax mu yëg dëgg ji mais hmm. xam naa ne dafa fees si xam nga mantu dafa am problème boo xam bu la eh, soo ko génnewul ak ab daf lay doon da yi di waxtu di taxaw ci potalamp yi di yor sa téléphone bi di message. Mhm. mais parce que li nga yéen ko foo nga yebbi mhm, mhm. foo nga dem wax ko nit. xam naa ne yow xamoo xamatul fu mu jëm. ci des mooy comme nangu na ko ba fii man weeraate am ci woon sens. man yow xamoo bëgg. man bu amee jaga jaga bëgg goo xamante weer nga ko yàq dara mën na nga dugg ci. Ah, bëggeel bëggeel loolu laa ne nangu mënu ko muñ. mënta muñ kan foofu nañ ci ñëw suba incha ak muñ bokkule. bismillah ba suba. Ah? incha allah waaw nan focus ci societé tay bi ak xale jigéen yi nga xam ne ak ñin ko sañ a wax ñu ngi dund ci woyof sër ci biir sa kër yi loo xam ne doy na war gis nga mantu légèreté moom jigéen moom xam nga li may wax danga naan danga faral góor faral faralu ma góor ji yaa ngi koy wax léegi liggéey bu ko ñaar si te bu yàqoo ñu jiñ ko kenn ki kiñ ko jiñ war naan góor mhm. kon xam nga ni li war jigéen ci sëy war a góor même bu sëyul parce que góor mën naa fate du feeñ xamuy feeñ jigéen de ko te jigéen ji yow la ñuy dénk ne yow la société bi di xool bët kon yow yaa war a xam ni nga am ne mantu jigéen amatul valeur xoolal fit u toll ni am jëkkër ni am far di ko waxtaane mais loolu mooy déli bi nu war a wax ci réew mi hmm? ah, am jëkkër am far ba pare di ko waxtaane diwa may taral diwa may yore sama lii diwa may defal lii. Hmm, hmm, pourtant doon nañu yore mais léegi seqatul dara sama càmmiñ la. am na ñu ko nëbbul de yaay. ku ko ko nëbbul de li de maa la ko wax maa la ko wax rek dëgg la réew mi ajaa ndaag mais dama ni la dama ni la xarit yi ku leen enquête enquête ñu wax parce que maanaam da ngay xool buñ toogee dañuy nekk à l'aise ci wax ji man tubaab lay waatal ni jigéen ñu ne ci buub di def lu bon yàgg yàgg eh, tu vas payer l'hypocrasie tu vas payer ça te kenn ku ne mi ngi lay gis moo la gën a jege sa boobu xol mais am jëkkër am far ba pare di ko waxtaane ak fitu affirmé di ànd ak moom ñu lay tuumaal te nëbbatuwoo mais fit weesuwul loolu mbon weesuwul loolu nañ waxtaan am na loo xamante ne jigéen moomu ko soo sëyul sax am na foo war a yem waxuma laa na nga am jëkkër nekk ci buum gis na jigéen ak góor acier la ak paas ak nër la acier la ak ak weñ ak weñ dañuy attirante moo tax ñuy tere affaire lëngoo bëreeg di di lonkonteeg di cokkaasaati. foo mm-hmm. gis loolu. Mm-hmm. c'est des c'est des mauvais gestes jigéen. Mm-hmm. góor gu la romb yow di dooraate. di kaf. di la nga yow eh, làmba sa poos jox ma kaf. uuf boobu ci jigéen baaxul. uufu am na ñuy uufu de. ñoom ñaar kan moo ci aas yéen. kan. kan góor jigéen. waaw. ñoom ñaar ku ci aas ku ci lan. acier bi ak kan moo ci weñ. jigéen mooy acier ah, jigéen mooy attire jigéen mooy attiré Fall moo tax euh, bu ñu naan moytu jigéen lañ koy wax seetloo jigéen bas âge ba ba muy màgg ba muy màgget dañ naan kon moytu. moom la ñuy la parce que moom ci boppam gis nga góor kañ waxante dëgg de fa al ak lu mën a am dëgg la ci côté lislaam bàkkaar bi benn la mais lii tooy lii tooy en général ci jigéen ñi lay jógee ci jigéen ñi seetlu loolu moo tax ma ah, ah. ma njëkkee waxu sama yaay ji ne ñaar bu ñu seqee liggéey te mu yàqoo ñu jiñ kenn ki ñu koy jiñ dafa war a euh, am na foo xam ne ci njaboot gi dektal ci njaboot gi laa koy dektal ci sëy nga jur fa ay doom am na doom yi nu ñuy mel danaan seen yaay ko liggéey muy safaan ba muy lu muy lu muy lu muy lu baax dañ naan seen ndey moo liggéey. man day bët léegi nag euh, am na foo xam ne it euh, daanaka góor ñi. bu leen doon jiñ liggéeyu kër yi ñaata góor lañ koy jiñ. xaw ma ko de. Hmm? barki démb gis naa ko bokk ci challenge waali bi ak Mia Guissé bi dama ko woo téléphone ñu ko génn ci. aw ma choix. mooy bi ñuy dagg tuñ yi. Ah, mooy bi ñuy kii noonu. waaw waaw bu bees bi. bu bees bi ñuy wane li nga xam ne ay tuñ rek ngay. waaw waaw waaw xaw ma eh. mooy bi ñuy diw tuñ yi ba mu kii. yuuxu Meya Guissé bi. Ah. xam nga may wax. waaw waaw xam gars <laughs> man de sama problème ba léegi. man sama sama problème ba léegi mooy way woowu. lu ci dugal yuuxu boobu. waaw yuuxu bu sew boobu moom. waaw non macha allah yàlla yàlla gërëm leen. man man ba tey sama wo man problème mu way way way li muy rëy yuuxu bi daal moo la ci neex. waaw way li muy rëy yëpp maanaam nu nu nu Meya Guissé eh, amee inspiration. déedéet da ngaa yuuxu ba lu ko fi indi. lu ko fa andi waaw lu andi yuuxu. lu tax yuuxu waaw naa question man xalaat naa ba ni sax man studio ay nit a fay xalaat naa yooyu yëpp studio moom ay nit a fay nekk. mais baax nga ne loolu yëpp yëg-yëg sensation. waaw man daal mais yaa. des fois des fois nga agis spontané. mais yaa il faut bi. mais yaa gisee question la il faut nga tontu Fall. way wi. moo tax moment boobu noonu boobu lu fi andi yuuxu boobu <laughs> ndax waawu waali la man comprendre naa studio moom ñu bari dañ mais mais mais di nga jàpp ne peut-être li waale wax est-ce que jar na yuuxu boobu. non yuuxu bi lu ko fa andi. yaa <laughs> question ah, la. beneen bi dafa am. Euh, Ousmane Ndiaye na léegi ragalatuñu rusuñu jomb. déedéet wala ñin ko sañoon Ousmane rek la de. déedéet Bour Guéweul eh, Jobaay ngi lay ziar sama xarit. Fall Fatou lay sekk ne merci voilà maa ngi koy ziar borom tawfeex moom ñuy seetaan maa ngi koy ziar. mooy bu a koy ziar bu wér. dafa am ñaar yu am. waaw bismillah dafa am jigéen gu suurul ak góor gu bëgg yëfi jàmbur. jigéen gu suurul. ak góor gu bëgg yëfi jàmbur. am na góor ñoo xam ne du ñu rëbb ku amul ki am lañuy lañuy rëbb. lan la borom jëkkër li ñu bëgg. loolu lan la. ah, ah seen bis euh, la maanaam seen waa seen bis la wala euh, ñoom ñoo bëgg du leen noppal rek parce que kee moom du yàgg ba mu seeti la. wala mu lii lan la xam nga lu tax dafa am ñoo xam ni. wallahi man vis ko teg parce que na yi ngay am ci jabaru jaam mën nga koo am ci xale boo xam ne amul jëkkër. ah ma am ci yaakaar. waaye nag bari nan de. waaye nag problème mooy bukki ñu nee ko andil ku ma sa ñam góor dafa indi ko ëmb. <laughs> te am na ñoo xam ni boroomi jabar lañu dañ naan boroomi jabar doxaan fóonante rek taxul fóonante képp ci mu doxaan yëngalul boroom jabar jeeg li wër. yaa ngi may dégg. léegi nag jeeg moom boo ko dee wër moom andi ko am jëkkër kooku jeeg loo koy lu bon. mais mën na sax koo xam peut-être euh, amatul wala. Yang ngi dégg mais force bu nekk bëgg yëfi jàmbur. waaw loolu tamit yëfi xale mi ngi ji bëgg yëfi jàmbur dañoo bëgg yëfi jàmbur. jigéen ñi tamit am loo xam ne ci seen responsabilité lañ mooy dañ dul suur di nga conséquence su andi dafa bari gis nga time jii ñuy wax lan moo andi anytime time, ni bis bi ngay mujjee maanaam. Euh, yàgg sa xarit maanaam euh, euh, enterré enterrement des jeunes filles waaw enterrement des jeunes filles. enterrement de vie de jeune fille. suul dundum jànko. Mm-hmm. moo moo tax. Mm-hmm. kon yaa am nga am nga foo jóge di dugg ci beneen catégorie. Mm-hmm. waaw ginnaaw am nga foo di di di di ci beneen catégorie lii dina ko andi mooy di sëy ba pare. continuer di and ak sax xarit yi nga doon andal demb te ay ñuy ay ya saliba deug la te nga xam seen sañ-sañ te nga xam seen sañ-sañ ndax bo yagge di sey responsabilité la borom jàkk day wattu borom ba baatu deug la waxuma la nga bàyyi sa xaritu demb yi de dëgg la waye nak borom jëkkeur ak ku dul jëkkër am na foo xam ne fa am deug la amna wax yo xamni waru leen ko seen amna ño xamni la koy téré deug la amna ño xamni buñu seyé am jëkkeur dañuy changer seen piste parce que seen démb la ñuy bañ mu fekk leen tey ci seen tey waaw yow nga kon ne di ànd ak sa xaritu démb yi ñi nga daan ànd di doxaan ñi nga daan ànd di macro ñi nga daan ànd di maraan yi tey di nga ànd ak ñoom ci kër goo xam ni yow borom jabar gi kër jëkkër nga ñu ànd ak ñoom ci seen kër far ñu fekk fa beneen xale bu góor abbas abbas ne waaye mere ma seen xarit bi kaay ma may la ko lañ koy njëkk a wax duñ ko wax ne ko am na jëkkër parce que bu ñu am am na jëkkër dafa am dafa am lu mu leen yàqal ba pare waxu la piis la di la lekkal xaalisam rek am ñoo xam ni seen mbaraan li leen andil tey seen ëmb gii ñu ñu xam ko hmm. mooy mbaraanu téléphone lañ la mbaraanu téléphone bari na jabal di di boroom ji kër yu bari yoo xam ni ci mbaraanu téléphone ci la ci lañ leen trompé dëgg la